senegal senegal maanaam diine yëf benn diine bi muy lislaam maanaam diine ji fi ne di lislaam dafa am kuréel yu bare. dafa am kuréel yu bari man nag murit laa. man nag murit laa. du ma ni leen mukk leneen la du ma leneen mukk nag leneen la ndax li ma am. ndax li ma am. loolu moo ma ko may. loolu moo ma ko may. Sëriñ Tuubaa loolu. bu weesoo loolu. damaa gëm muridisme. dama gëm murid dama ko gëm dama ko gëm mas naa ñëw siyaare ci Serigne Fallou nee na mas naa ñëw siyaare ci Serigne Fallou maa ngi ànd ak suma benn xarit di professeur américain mi ngi ànd ak benn xaritam bu doon professeur américain ma présenté ko Serigne bi ma présenté ko Serigne Fallou Serigne bi ni ko ni ma waaw kii mooy kan ma ne ko kii de américain la day jàngale ci Amérique. Serigne Fallou ne waaw kii mooy kan ma ne ko ah kii de professeur américain la day jàngale ci Amérique. day jàngale économie. day jàngale économie. comme man. comme man. loolu moo tax nu xaritoo. loolu moo moo waral nu xaritoo. ba pare moom mu nekk nag spécialiste Afrique. ba pare nag moom mu nekk professeur boobu américain boobu spécialiste Afrique. Serigne Fallou ni ma ni ko ñoom murit lañu. sëriñ fallu ne ko ñoom ñu ay murit lañ. wax ko ne ko ay murit lañu. ñoom ñooñu ay murit lañ américain yi. ma ne ko ah sëñ bi nee na yéen ay murit ngeen. nee na ma ne ko ah man de li ma jaaxal yow sëñ bi daal nee na yéen ay murit ngéen yéen américain yi. mu ne ma waaw man américain la lu tax ma nekk murit. mun ne ko ah, man américain la lan moo waral ma nekk murit. ma wax ko sëriñ bi. nee na ma wax sëriñ fallu loolu. sëriñ ni ma ñoom liggéeykat lañu. Serigne Fallou ne ma ñoom ay liggéeykat lañu. kuy liggéeykat rek. te kuy liggéeykat rek yaa ngi ci yoonu Mouride. yaa ngi ci yoonu Mouride <laughs> sëñ Fallou ko wax loolu. waaw te dafa xawa mel na ko. te dafa xaw a mel ni que. addina yëpp li ciy dox. àddina yëpp li ciy dox. waxuma senegal rek. waxuma Sénégal rek. addina yëpp laay wax. addina yëpp laay wax. dama bind ci benn téere dama bind ci benn téere ma ne Afrique ma ne Afrique bu ñu toppoon yoonu sëriñ Touba bi bu ñu toppoon yëriñ yoonu sëriñ Touba nëga ni dana fekk ñu sori lool ba dab tubaab yi dana fekk ñu sori lool ba dab tubaab yi ndax li ñu sëriñ Touba jàngal ndax li ñu sëriñ Touba jàngal wéer ko ci li yàlla sunu borom wax wéer ko ci li yàlla sunu borom wax ñaan leen ma ma may leen. ñaan leen ma may leen. sëñ Touba jàngal nu. sëñ Touba jàngal nu. liggéey liggéey. liggéey ci topp yàlla la bokk. liggéey ci topp yàlla la bokk. ñu nekk ci loolu. ñu nekk ci loolu. loolu nag dama bind ni ku ko am ci réew. loolu nag dama bind ne képp ku ko am ci réew. réew moo xam ne da am nit yoo xam ne dañuy liggéey. réew moo xam ni da am nit ñoo xam ne dañuy liggéey. te mën nañoo liggéey te duñu fayul dara. te mën nañoo liggéey te duñu fayul dara liggéeyal réew mi rek. liggéeyal réew mi rek. réew mu am loolu. réew mu am loolu. am nga lu ne. am nga lu ne. ma ci téere boobu dafa xaw a mel na. nee na téere boobu dafa xaw a mel ni. alal joo xam ne dañu gas suuf dugal ko ci. alal joo xam ni dañoo gas suuf dugal ko ci suul ko ci. te xamuñu ko woon. te xamuñu ko woon. Cheikh Ahmad Bamba nag moomu woon ni. Cheikh Ahmadou Bamba nag moom woon ni. bu ngeen toppee di liggéey. bu ngeen toppee di liggéey. alal jooju la di ngeen ko jot. alal jooju dangeen ci jot. mu jëriñ leen mu jëriñ leen. lu jiitu pétrole bi ci la bokk pétrole bi ci la bokk. nee na lu jiitu pétrole bi sax ci la bokk. pétrole. pétrole. kenn xamul fu mu mën a ne. kenn xamul fu mu mën a ne. kenn xamul it li tax yàlla def ko ci bërëb. kenn xamul it li tax yàlla sunu borom def ko ci bërëb. am nañu nag ay machine appareil yoo xam ne ak avion. am nañu nag ay machine ak i appareil yoo xam ne ak i avion. bu ñu ko seetee. bu ñu ko seetee. satellite yi. ci satellite yi. danañu mën a photographier suuf si. danañ mën a photographier suuf si. ba xam li fi ne lan la. ba xam li fi ne ci biir lan la. waaye loolu yóbbuwu fa boppam. waaye loolu yóbbuwu fa boppam. yàlla nag moom mooy seet ci kattanam. yàlla sunu borom nag moom mooy seet ci kattanam. fii ma def fi lii fii ma def fii ma def fi. fii ma def fii ma def fi lii fii ma def fi lii. bind naa ci 1958 ci sama thèse. bind naa 1958 ci sama thèse. ni la doctrine économique du mouridisme. ni la doctrine économique du mouridisme. c'est une richesse cachée dans un pays pauvre. c'est une richesse cachée dans un pays pauvre. ma ne bu fekkoonte ne Afrique yëpp dañu topp mouridisme. mu ni bu fekkoonte ne africain yëpp dañoo topp mouridisme. dana fekk Afrique lool. dana fekk Afrique sore lool. ndax ñun li ngeen nu jàngal. ndax ñun li ngeen nu jàngal. mooy liggéey rek. mooy liggéey rek. te àddina dara newu fi lu dul liggéey. te àddina dara newu fi lu dul liggéey. ak gëstu. ak gëstu. gëstu nag. gëstu nag. mën ngaa trouver dara mën ngaa bañ a trouver. mën ngaa trouver dara comme man ngaa bañ a. yàlla booy gëstu. booy gëstu yàlla moo xam lu mu lay won. yàlla moo xam la mu lay won. ci nameelam Einstein nga xam ni dañu dañu jàpp ni moo fi ëpp xel waaw yëg-yëg yi nga xam ne dañoo jàpp ne ñoo fi ëpp xel Einstein ah, Einstein Einstein waaw Einstein waaw borom xam-xam bu mag la di woon ab allemand moo wax ni sama formule bi may wax ñëpp di ko yéem moo wax ne sama formule bi nga xam ne moom laa def wax ñëpp di ko yéem muy E égale MC2 mu E égale MC2. Énergie. Énergie. égale masse. égale masse. que multiplie la vitesse. multiplié carré de la vitesse. mun a calculer wu ba agsi a calculer wu ba agsi damaa jékki-jékki rek gis ko. damaa jékki-jékki rek suñu borom sol ma ko. yàlla sol ma ko. ma daal di ko bind ci ma daal di ko bind. te formule boobu. te formule boobu. moo tax. moo tax. américains yi. américains yi ak russe yi. russe yi ak chinois yi. chinois ñuy mën a defar ay machines yoo xam ni. ñuy mën a defar machines yoo xam ni di dem ba ca weer wa. di dem ba ca weer wa. ba ca ba gannaaw weer wa. ba ca gannaaw weer boobu. loi mooy mooy régir maanaam moo nekk ci diggante lu nekk ci àddina. loi boobu mooy kenu lépp lu nekk ci àdduna. te kooku yàlla ko ko won te kooku suñu borom moo ko ko won yàlla mënoon na ko won keneen. yàlla mënoon na ko won keneen. waaye moom la ko won. waaye moom la ko won. waaye xam-xam yemul ci ci boobu. waaye xam-xam yemul rek nag ci loi boobu. am na yeneen yu bare yoo xam ni am na yeneen yu bari yoo xam ni. ñi ko gis. ñi ko gis. te ñu di ko jëfandikoo. te ñu di ko jëfandikoo. ñoom itam dañoo yàlla moo leen ko. solo rek ñoom it suñu boroom rek moo leen ko woon ci kàttanu ko. Euh, c'est vrai que. dëgg la nag ni. découverte yooyu. découverte yooyu yooyu ñu gis. Afrique. Afrique bari la wu ci. Afrique bari la wu ci. sunu Afrique bi. sunu Afrique gii. waaye am na yu bari yoo xam ne ñu ngi koy jëfandiku léegi. waaye am na yu bari yoo xam ne ñu ngi koy. jëfandiku ci Afrique la jóge ci Afrique gii la la bawoo. waaye dafa xaw a mel na mu am jamono boo xam ne dañu koo fàtte. waaye nag dafa am jamono boo xam ne dafa mel ni dañu ko fàtte dafa xaw a mel na. dañoo fàtte xam-xam boobu dañoo fàtte xam boobu. te tubaab yi di ko jëfandikoo fi mu ne. te tubaab ñoom di ko jëfandikoo ñoom nangu nañu ni sax nangu nañu ni. ñoom nangu nañu ni. lu bare lu ñuy jëfandikoo ci xam-xam. lu bari lu ñu jëfandikoo ci xam-xam. mu nga jóge ca Égypte. mu nga jóge ca Égypte. Égypte ci Afrique la ne. te Égypte ci biir Afrique la ne te Égypte ña fa dëkkoon nit ñu ñuul lañu. te Égypte googu it ña fa dëkkoon nit ñu ñuul lañu. ñëpp xam na civilisation égyptienne. waaw civilisation égyptienne ñëpp xam nañu. moo jiitu civilisation grecque. moo jiitu civilisation grecque yi savant yi dañu daan dem di jàngi Égypte. te grec yi savant yi dañu daan dem ñoom sax di jàngi. grec bu euh, romain yi dañu fa daan dem di jàngi. romain yi dañu daan ba Égypte ñëpp di fa jàngi te ay nit ñu ñuul lañu. te ñooñu nit ñu ñuul lañu. waxuma ko nag ci kaw lu ma neex. nee waxuma ko ci kaw rek nag lu ma neex. Cheikh Anta bind na ko. Cheikh Anta Diop bind na ko. tubaab yi contesté ko. tubaab yi ci boppam euh, dàq ko. ni ko loolu mënuñu koo nangu. ni ko loolu nun mënuñu koo nangu. pourtant wone na ni. te moo ne wone na ni. ñooñu ay nit ñuul lañu. ñooñu ay nit ñu ñuul lañu borom der yu ñuul. boobu ba tey nag ñuy xeex loolu. boobu ba tey ñuy. égyptiens yi. seeni buur seeni buur. amoon na ci ñuul. amoon na ci ñu ñuul. alors ko dañu noon benn nit bu ñuul amu ko. dañoo dàqoon ne benn bu ñuul nit ku ñuul amu ko. kon nag euh, ñi ñu ñuul kenn kenn jiitu ko ci xam-xam. kon nag nit ñi ñuul ñi kenn jiituwu leen ci xam-xam. xam-xam nag mooy gëstu. xam-xam nag mooy gëstu. léegi boo seetee brevet yi. léegi boo seetloo brevet yi. Amérique. Amérique. yu ci bëri ay nit ñu ñuul la ko inventé. yu ci bëri ay nit ñu ñuul ñoo ko inventé ñoo ko xalaat gëstu ko. ñoo ko xalaat. Mhm. waaye ci tàngu esclavage. waaye ci jamono dañuy jàpp njaam njaayum jaam. bu jaam bi trouvé dara. bu jaam bi trouvé dara. bërëbe bi bërëbe ba. ñu askanale ko ci moom jaam bi moom moom moom la ñu koy bind. ñu askanale ko ka wax ne moom mooy boroom jaam bi. ba am na lu bare yu ñu inventé ñu naan jiw ko def jiwu ko def fekk lu moom la fekk jaam ba moo ko turóon. am na lu bare bare bari ñu jàpp ne. ma mënoon naa fi toog yi wax. mën naa fi ay wax. di leen wax yoo xam ni. di leen wax yoo xam ni. ay nit ñu ñuul ñoo ko turóon. ay nit ñu ñuul ci boppam la yàlla jagleel. nit ñu ñuul Afrique. nit ñu ñuul Afrique. am na ñu ñu turee. am na lu ñu tur waaye nit ñu ñuul Amérique. waaye nit ñu ñuul ñi ca Amérique li ñu turé moo ëpp. lañu ñu moo ëpp. moo tax. moo tax damaa am mouvement boo xam ni. damaa am mouvement boo xam ni. dama ko bëgg lancé lancer ci xale yi. dama ko bëgg a lancer ci xale yi. pour habituer leen ñuy gëstu. waaw pour que ñoom habitude di gëstu. bu ñu amee bu ñu inventé dara rek. bu ñu demee ba inventé dara rek. man maa leen koy brevetel. moom ci boppam moo leen koy bëréewatee ngir kenn du ko mën a imiter nga xam ni kenn du ko mën a toppandoo ku ko bëgg a soxla ku ko bëgg a utiliser ku ko bëgg a soxla da nga looy fay bëgg cee jaruñ it da nga am loo fay bëréwe ko am xaalis la bëréwe nag ku am xaalis la foofu mouvement boobu ma bëgg a lancer mouvement boobu nga xam dama ko bëgg a lancer pour xale yi pour xale yi li ma ci namm moo di li ma ci namm moo di fexe ba xale yi fexe ba xale yi mënal seen bopp mënal seen bopp am liggéey am liggéey au lieu di toog jox leen liggéey. au lieu ñu toog ñu di leen jox ñu. danaa leen wan nañu mën a def ñoom. dana leen wan ñoom ñooñu. nanu mën a def defar defar seen liggéey. ba def seen liggéeyu bopp. duñu man lépp nag. duñ man lépp nag. waaye di nga mën a liggéey loo xam ni. waaye da nga mën a liggéey loo xam ni. di nga ci mën a dund. da nga ci mën a jariñu dund ci. sëriñ bi. sëriñ bi. tey lima fi indi. tey lima fi indi. mooy siyaare la. mooy siyaare la. gërëm la gërëm la indil la sama sama ngërëmu doom indi la it sama ngërëmul doom sa taalibe di sa taalibe ni ma nee sa taalibe ni mu nekk moom it sa taalibe ma nekk taalibe sëriñ saaliw mu nekk taalibe sëriñ saaliw mu jóge fi ma jébbalu ci yow mu jóge fi mu jébbalu ci yow mi ngi ci jàmm nag mi ngi ci jàmm nag tey jii jokkoon nañu ñaari yoon wala ñetti yoon tey jii jokkoon nañu ñaari yoon ba ci ñetti yoon Euh, sëriñ bi. sëriñ bi. dafa am liggéey yu ma bëgg a liggéey. dafa am liggéey yu ma bëgg a liggéey. ma di ci laaj sa ndigal. ma di ci sàkku sa ndigal. boo ma nee digal naa la loolu. boo ma nee jox naa la ci ndigal rek. ma daal di ci jublu léegi. mu daal di ciy jublu léegi. bi ci jiitu. bi ci jiitu. moo di Touba. moo di Touba. ni mu sonnee ci ndox. ni mu sonnee ci mbiri ndox. surtout màggal. surtout nag bési màggal. ñëpp dégg na sa kàddu. ñëpp dégg nañ sa kàddu ñun ñii ñëpp. ñun ñii ñëpp. xam na ni màggal. xam nañ ni màggal. problème la ndax ndox mi. problème mu ndox dëgg dëgg da ci am. bi ma nekkee président. bu mu nekkee président. juróom fukki at ak ñaar. fukki at ak ñaar. ah daanaa góorgóorlu di ci def lu ci man nee daanaa góorgóorlu di ci def lu ma ci man waaye léegi nag. waaye léegi nag. damaa bëgg a def loo xam ni weesu na loolu. damaa bëgg nag def loo xam ni ci wàllu ndox weesu na loolu. weesu li ma daan def. weesu na li ma daan def. ak li ñuy def fii mooy. ak li ñuy def ci jamono yii ci wàllu ndoxum Touba. li sëñ Touba wax ni. li sëriñ Touba wax ni. bés dana ñëw. bés dana ñëw. ba ndox muy. dama koo dégg de. Mm-hmm. sax dama. sama benn sëriñ indil ma bindal ma ko xam naa ni mi ci sama kayit yi nii dana bés dana ma sa ñëw bés dana ma sa ñëw ba ndox di walwali Touba ba ndox di walwali Touba bare ndox mu baree bari di walwali Touba ci Matlaboul Fawzeyni ci Touba te loolu ba tey gisuñu wuñu ko te loolu ba léegi ci saayir gisaguñu ko ma bëggoon nag sëñ bi ma bëggoon nag sëñ bi nga may ma nga may ma ndigal nga may ma ndigal man ma nekk taalibe bi réalisé man ma nekk taalibe bi nga xam ne ci sama loxo la loolu di antoo ndigal rek laa ci soxla ndigal rek laa ci soxla ngir ndox mi walwali ci Tuuba soxlawuma leneen soxlawuma leneen lépp lépp maa koy xalaat maa koy xalaat ba indi ba indi ba indi ndox ma pour que affaire ndox ngir mbiri ndox baña te nekk problème baña te nekk problème ci Tuuba ak li ko wër sax nun murit xam na nu ni nun murit xam na nu ni li xadimu rasul gis ba wax ko li li cheikhul gis ba wax ko lu mën a am la lu mën a am la kañ lay am kañ kañ lay am kay man nag dama ko bëgg a def waaw loolu nag laa bëgg a def ndigal rek rek nag laa ci laa ci sàkk man fi ma nekk weesu naa di campagne nee na fi ma nekk man weesu naa di ndigal rek waaye danaa la. waaye nag danaa la leeral. leeral. leeral mbokku taalibe yi. leeral mbokki taalibe yi. lii ma wax nii. li ma wax nii. naka laa koy defe naka laa koy defee. jox naa la problème mu Touba. nga ne ma jox naa la problème mu Touba. góorgóorlu ba ndox dootu fi ñàkk. lu rekk ba ndox dootu fi ñàkk. bu soobee yàlla ma jublu ci léegi. bu soobee yàlla ma jublu ci léegi. bi may ñëw fii. nee na bi may ñëw fii. ma gis ci autoroute bi. ma gis ci autoroute bi. da ngay xool ba fu sa bët mën xool ba fa sa bët mën a ngay gis ay garab nii rek. dangay gis ay garab nii rek. waaye benn euh, euh, mbay new fa. benn meññeef ni luy sax meññeef. luy sax. dara da ngay xool doo gis dara. da ngay xool doo gis dara. ma bëgg nag. mu bëgg nag foofu tam foofu foofu tam. nga jox ma fi ndigal. nga jox ma fi ndigal. ma bay ko yëpp. ma bay ko lépp. ba boo jógee fa il a commencé ba fii. ba foo mën a jógee ba fii. foo xool dafay weer. foo xool day wert ak gàncax. ñu di fa jëmbat di fa di fa ji. di fa jëmbat di fa ji lu ñuy lu ñuy lekk rek. lépp lu ñuy jariñoo rek. xam nga man ci sama bopp sax damaa jaaxle. nee man ci sama bopp sax damaa jaaxle. parce que ba ma amee xalaatu xale yi. ndax ba ma amee xalaat ci xale yi. pour yóbbu leen def leen ci ay ferme ngir yóbbu leen def leen ci ay tool yu mag ay ferme yàgg na waaye ilaa Touba bii waaye ilaa Touba bii dafa nekk autoroute boo xam ni. day yombal la ma xalaatoon. nekk autoroute boo xam ni day yombal la ma xalaatoon. man maa ngi bëggoon a commencé ci Linguère maatam nee na mi ngi bëggoon a tàmbali ci lim. ci Linguère Matam. ndax boo bayee itam il faut nga am oto yoo ko yëpp mu dem. ndax boo bayee faaw nga am oto a yëpp fa ñu koy jaayee wala ci port wala ci aéroport ñu exporté ko. wala port mbaa aéroport ngir jàllale meññeef mi. léegi nag. léegi yàlla def na Ila Touba bi. yàlla def na Ila Touba bi. yàlla ak xadimu rasul yàlla ak xadimu rasul foofu dama dama bëgg nga jox ma fi ndigal dama bëgg foofu nga jox ma fi ndigal ni ma suuf saa ngoog bayal ni ma daal a ngoog rek bayal li mag ma nar a bay li nga xam daal moom laa nar a bay lépp ngi ci biir lépp a ngi ci biir kii nag dix hectares la fukki hectare bii nag ma indi ci masala moom fukki hectare la dama ko fi bàyyi sëriñ bi bàyyi لي سكينة بكل الجنة من دار من يا المنة لي سكينة بكل الجنة من دار من يا المنة